xam nga fu mu yéemul dara waru laa yéem Ahmed Ndoye lu ñu ko reconnaître coupable défaut de permis faux isage de faux quinze jours de prison loolu yéemu la sans amende est-ce que yéemu la moo tax waa Pastef war a def ndànk jox na junj naa leen nag moo tax ñu war a def ndànk bari pexe nag saf yàlla da koo gën gis nga ñi nga xam ne dañoo bokk ci ñun ñu bokk ak ñoom benn kuréel. mais est-ce que benn la mooy C221 dama ne. waaw mais est-ce que benn la kaay yi parce que fële am na dafa tooy may ma dama ne. Hmm. ñun ñu bokk ci ñun di C221 di liggéey. Hmm. xam ne démocratie ak liberté rek moo ñu ñor bu ñu amee problème ak justice ñi ci des nañ ci maandu moo gën mooy sàmba yi toog ci télé yi nañ ci maandu sinon nit dina ci am lu ko naqari de te nag ba pënd bi wuri vétide amee Ndoye bi daleen da leen bett ñoom. ñu ah, doon wax ah, am na ku mu bett ba mu taxaw ci meeting naan am na ko ñu war a tëj un an ñu tëj ko 15 jours am na mbetteel kay naqar waxuma la mbetteel de waaye tuuti mu am tuuti mu piqué cardiaque tuuti xam naa ne moo waraloon pastem ju bari jooju <laughs> xol bee naroon a génn moo rax mu jël paste ji di màcc rek di féexal xolam nañ ci def ndànk am na yoo xam ne sawaay jëru ko. mais ab mais am nañ ci maandu. justice xoolal justice. juste dama ne la ñett ñii xam nga ku leen sonal. Hmm. politiciens yi. te man Sénégal te man bokk na ci porte combat bi ma porté ci C221. ok xam mooy lan. ok mooy lan ñun sénégalais yi ñu góorlu ba. politiciens yi maandu ci justice bi maandu ci police bi maandu ci gendarmerie. billaahi fàllu maa la ko wax lii bu ko sénégalais yi xeexee ba am ko dootoo fi dégg ku dee dootoo fi dégg boutique buñ taal dootoo fi dégg ku taal puno. Hmm. te billaahi laa ko waat. lii sénégalais yi benn combat rek lañu am mooy fexe ba justice bi moom politiciens yi maandu ci te fàllu li boo ko defee référendum cent pour cent lay jàll wala quatre-vingt-dix-neuf pour cent lay jàll un pour cent yi mooy politiciens yi ñoo ko dund donc suñu bàyyi yoon ak wàllu yoonal rek doxal non lu bari du fi xew yow fii mën ngaa gis ku të ba të gendarmerie mën ngaa gis benn délinquant bu fi yàpp ba yàpp ba të police yow mës ngaa gis ku fi ku fi ku fi réew magistrat ragal laa condamné gis nga ko fi. Hmm. kon ñooñu mën nañu régler seen problème. mais Abdou lii di fi xew politiciens yeeg seen téléphone ci justice bi. justice bi indépendance. mais Abdou lii di fi xew lii yëpp est-ce que suñu bàyyi tamit ñu ne duñ ne bi dafa faible. non euh, ba lépp luñ dugg rek si wàllu ah, insanité euh, ñu jël teg ko seen côté. yow wax nga wala lii suñ ko continué nii. est moom bu bàyyi woon kon justice bi dafa dafa dafa incompétent ci loolu justice bi naa la état bi bu génnoon ci mbir yi daan ne procureur de la république jox ko tous les prérogatives yi mu am. nam hmm. wut ay juge des libertés. Hmm. teg leen parquet bi nga xam ne moom mandat lay am. procureur dafa war am mandat maanaam c'est-à-dire que ko kenn mënu ko folli comme conseil constitutionnel ni ñu fale ñooñu. Hmm. procureur dafa war a am mandat. ñu koy tegal benn juge boo xam ne bala ngaa yóbbu prison kooku mooy xool procureur gaaw yóbbu prison xam nga day wàññeeku boobaa dootul am. xam nga booba Sonko dootul am yabeel gu toll ne taxaw fële ne téléphone am allo euh, jàppal ma diw. ba tey amoo si preuve que ni euh, loolu. Sonko ko wax de état di dugal loxoom. Sonko ko wax de Sonko dafa ne loolu mënoon na ko def. déedéet déedéet waxul loolu waxul loolu waxul loolu yaa ngi koy defar. dane Sonko dafa ne loolu ah, mënoon na ko def mais fekk ko si. maay wax waaw. Ah. Sonko dane moo tànn ministre Ousmane Diagne bu ko kenn gëmloo ne dafa war a indépendance ndax man ci sama gouvernement la nekk. Hmm. waaw hmm. moo ko tànn ci gouvernement am la nekk da koy waay surga bi ci sa tool bi sax am na fu mu war a yem mu ne su ma nee diw da ko war poursuivre Sonko dafa jub dafa waroon ne su nit defee infraction su ma procureur wax ko war na ko mais dane ko diw ko ah infraction la ma moom dafa war a woo procureur général procureur général woo procureur de la république ñu topp kooku ba mu xam nga lan la ci teg. Hmm. lan moo tax ñuy convoqué suñuy militant ah wax jàngoog mooy bañ taalee kër Bart euh, seesu barte ba. ñañ ca convoqué woon nee na lan moo tax ñu leen di convoqué. Hmm. Ah, kon yoon daal sañul gis ay nit am xel ñaaw ci ñoom mu woo leen moo tax ñun dugg nañ ci tooxi doona giraawaal yi dëgg la Sénégal dugg. fii toog naa fi man leen ñi jël seeni i carte sànnil ko passif nañu xam ëllëg responsabilité lu fi waa passif def ñoom ñooy responsable mm. loolu moom na leen leer lu waa passif def ci carte yooyu rek responsable bi ñoom la na leer kon Ousmane Sonko il a passé à côté waxam jooju moom dafa passé à côté wax dëgg yàlla génne na làng gi fàllu nañ waxante dëgg rek. mais ñu ne nii Sénégal man xam nga waa Pastef li tax ma gën leen a mere. Hmm. mooy yow nekk nga ci réew mi di naxaate di teg xel. di hmm. escroquer ba falu. Hmm. mais nga daxul dëgg ba dëgg-dëgg yow ñëw nga indi lu ñu benn livre solution c'est di escroquerie politique nga ñëw fal nañ la ci waaye yow léegi doo summi mbub moom mbubum naxaate ma nga soloon daane te xam nga ne nekk ci nguur di naxaate pour nga feeñ day yomb di. man nga opposé mais pour mois Abdou. mois dara xaju fi ah exactement non c'est la justice. ah Hmm. alors ñu ci <laughs> par rapport ak li nga ko que actualité mi mu euh, alors Abdou ñu directement hmm, euh, euh, du côté de la régie que